asalaamaaleykum man seen xarit seen soppe man maay wax ak yéen muy Soxna Awa ñun waa lu ñu bokk teebee dañoo ñëw fii nga xamante ni mooy dëkk bu sell bi muy Touba Mbacké Touba Mbacké boo ko waxee sa xel dafay dem ci Cheikhul Khadim borom jàkkaay géej gi bàyyi Serigne Saliou ak Serigne Fallou ñi ngi nii nag ci côté jumaa yi dañu jéem a dem yi pèlerin yi li ñuy wax ak seen taxawaay ci màggal gi ak li nga xamante ni ñoom coono googu la ñu am ba ñëw fii du ma ni sax coono mbégte ñu dem ba ci biir biir biir ñu jéem a jël nit yi incha allah dama kontaan maa ngi nuyu ñëpp ñun la waa daayira yow xidmatul xadim bu Masalikul Jinaan ñoo ñëwoon tey jàpp si liggéeyu sëñ Touba bi am nga ñëw rek màggal si jàpp si liggéey bi nan ngeen nan nga nan nga gisee coono yi ak organisation bi métti na moom. waaw métti na trop sax métti na trop yombul de. yaakaar sëñ Touba rek yàlla nañu sëñ Touba fayal boppam métti na moom métti na trop trop sax. man Mouhamed waaw. Thiès laa jóge waaw. màggal gi wax dëgg yàlla neex na lool. waaw lii lépp waaw bëri mbégte lii lépp te yàlla nay gën di màgg chaque année. ñëpp di ko fekkee di dem ak jàmm di ñëw ak ñàbb bilaay kontaan nañ de waaw. non xat na rek xat na mais xama moto mom boko yoré mom xama di nga mëna a dugg di génn dal mais danger ngi ci tamit Serigne Touba mo ñuko jaral waaw billahi walaay kon daal kontaan nañ trop wa jere jere Cheikhul Khadim looloo jar waaw merci beaucoup ñu ngi ni nak dend ak benn Baye Fall di ko laaj man nga ya ma ngi leen siyaar yéen ñëpp di len nuyu ma ngi tuddu Abdourahmane quoi Abdou Abdourahmane waaw maa ngi sant si mais boo gisee lu waral li lépp dugg-dugg bi ak génn-génn bi yëpp seen bi la parce seen bi li lépp liggéeyam la te dama jàpp ni tamit ñun dañuy jéngu te dañuy jéngu mais mënuñu am fayam waaw mais dugg-dugg bi nii yëpp ak génn-génn bi yëpp foog mu tar parce moom li mu am nii boo gisee li mu am nii yëpp jàppal ni dafa metti quoi bu ko waree bu ko amee dafa war am bu ko amul tamit dafa ko war am billaahi moo tax seen bi ñun amuñu fayam quoi amuñu fayam mais dañuy jéngu dañuy jéngu di def mais amuñu fayam mais nga baal ma tamit si benn question bi nga fii Touba dañu war a invité dañu war a interdire benn action muy jigéen sant nu ko laxasaay mam jaara la leen royloo quoi xam jigéen ñi dal dal leen sant pour ñoom nuy mël fawu ñeen lañu sant laxasaay muy góor yàlla yi di roy maam Cheikh Rafal ñenn lañu sant laxasaay loolu la amoon si lu ma doon question. d'accord jigéen ñi dégg ngeen bu baax a baax a baax leçon de morale bi xam naa yaakaar naa ne bàyyi ngeen ci xel nañ moytu laxasaay yi tey mël faw mbaa ñuy ko waaw sëñ Mor laa tudd maa ngi sant maam borom tuubaa di sant bu wér ndax li ma ci kàmmal li ma yaakaar si moom man maa xam waaw mun ma ko fii wax sax yàlla xam nag barke sëñ Touba da ñor maa ngi fi booy ëllëg yombal kiyaam waaw sant bam bu wér jërëjëf waay Soxna Awa mooy des ak ba tey instant bi ñoo ngi nii ak suñu ñetti jongoma macha allah ay yaay faal maa ngi lay nii jaajëfal bu baax a baax a baax ci seen jombalal maa ngi lay laaj euh, maa ngi tudd Fagouda Touré man day Ami Nguer Khady <laughs> Mbengue Touré ñii laa tuddee ndax ñoom xam naa ne yàgg nañ lool euh, seen mbégte mbégte yi ngeen am ci ci ci màggal kontaan nañ trop franchement parler kontaan nañ trop macha allah. daa dëgg si kontaan ànd ak si mbégte ñu ñu fekkee si jiw safar bi di sant sëñ Touba bu baax. Touba Fakal macha allah moom màggal bi neex na trop parce que sëñ Touba lu mu jaral jaru sëñ Touba moom du kenn tey moom wane nañu lépp sëñ Touba daal mooy moom. seen kàddu yi rafet na lool lool jaajëfal bu a baax a baax. laa duutu. magal neex na trop. wax si Saalum magal sëñ Tuubaa léegi amul morom wallaahi sëñ Tuubaa magal lépp amul solo lool lool lool léegi sëñ yàlla jàmm yàlla kon kon neex na trop wax si Saalum takk liggéey sëñ Tuubaa rek si kanam. waaw na nga yàlla bu baax a baax mu ngi gën a kii baax a baax wax dëgg yàlla mu ngi gën a évoluer ndox mi tamit yàlla dimbale nañu ndox mi bari na ci dëkk lool mais dara mu jul war da bi affaire yooyu ndox mi yëpp da mel ni sëñ bi da kaa tey ok mooy njëriñ la fekk fekk ba incha allah. waaw sëñ Abdou Lahad Seye daa tudd sëñ Abdou Lahad Seye waaw. ok asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaara di nuyu mboolem mbokk yi nga xam ne. teew nañ ci bisu màggal bi yëpp yëg-yëg bi ci am mooy ah, bi ci murid yëpp di am te mooy li Sëriñ Tuubaa radiyallaahu ta'aala anhu ah, doon ñaan boromam ndax xam nga ne mm, daa liggéeyal yàlla Sëriñ Tuubaa suñ borom yokkal na ko ay honneur ci àdduna bi gis nga almaañ gii nga xam ne ñëpp a xam ne almaañ aw lislaam waxu ci dara nii may wax ak yéen nii foofa nga xam ni mooy fonsa nga xam ne Ibrahima Tambédou moo ko jiite association Fonja bi ne Allemagne ca Fonja noo nga fay jëmmal Serigne Touba jëmm ji loo xam ne ni jégg doyo kon nag li mu waxoon ne si maamour war a xasri yaddallaahi fi yeddi yàlla jël na lépp teg sama loxo kon ñëwaat na bisub ren ji ku xool màggal gii tey ji ak nit ñi fi nekk mbooloo fi am musu fee am waaw moom kese la damaa romb fii xale yi naan mim réew bambaako ko moom Bamba mooy kii moom mën na leen da ngeen a juum da ngeen naan adduna bàmbaa ko moom ah, mu ah da ngeen naan adduna bàmbaa ko moom ndax moo ko wax dane ma lekka nii dunya wa sama samadu yàlla sunu borom moom loolu ma adduna ak kon dee leen wax adduna bàmbaa ko moom damaa bëgg na képp ku taxaw tiim nu di wax ngeen ne jërëjëfe Serigne Touba yéen ñëpp jërëjëfe Serigne Touba na na na kawe jërëjëfe Serigne gën na gën a kawe dégguma dara jërëjëf Serigne Touba amul morom jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf